allo allo allo. allo allo. allo. allo allo allo. daanu seen ne quoi. Fall jëlul maa ngi naan nii moo gën de nii moo gën nga nekk di kulo. waaw. ah. ah. ah. mon père naa def. maa ngi sant bu baax mu ngeen def. naka organisation bi. ñu ne moom la ñëw di xoolaat. ah moom di xool. ah c'est bien. sooy màggal yonent bi salaa salaam. ah sant yàlla gën ñëpp da ngay fexe ba li ngay li defal gën lu ne. mooy jéem yi nga xam ne lan lañ lan lañ naraat xaaraat. yonent bi salaa salaam rek. macha allah yàkkal yàkkalal gars yi ñu añ. ñëpp gars yi dara manqué wul tuuti dara manqué wul. ñii samay mbokk lañu. ñii sama waa kër Ndiaye seen Modou Makhtar Gueye. wallaay wallaay ñëpp ngi ak dara manqué wul. ñu bëgg leen ko. macha allah dara manqué wul. ndox maa ngi ñëw. waaw toppatoo la. d'accord ah, ñu ngi benn ñu ngi toppantoo macha allah am seen Soxna Dieng ak Mbacke Soxna Dieng ak bala Soxna Dieng Abdourahmane Soxna Dieng. mbaa ko sa kër maam la sëñ Bamba dañu la góor ñaak jigéen jébal sëriñ Bamba mbaa ko sa kër maam sëñ Bamba mi uti lu mu am kër maam rek la dem ñu wattu alxuraan di mbokkum sëriñ Bamba sëriñ Bamba la mu bëgg lépp mu ko di kër maam rek la dem Fatick Mariam ak ay sët Abdou Assane Touré Abdou Kala Diané ma sët sëriñ ay sànq moom sëriñ Jéy la mu baax sëriñ way ku ñëw mu mu sagal ñaari bi sax la am sëriñ Bamba maamam ak Seydina Mohamed tubaarkàlla ku ñëw rek mu teral tubaarkàlla Touré yàlla yàlla yàlla fan yu gudd yàlla yàlla guddal fan ñu may bëgg rek téléphone ak ñu ñu reer ñu dañu di woote waa France di ma woo waa Angleterre woo nañ ñu eh. am jëleen seen taxi rek ci jàng bi nag. jégalu woon c'est pas grave. soo leen ñëwee ah loolu mooy dëgg. allo allo allo. mais c'est vrai que lii moo ñu baare. oto bi nag daa wëree gis bu oto bi daf ñu baare. kii kii moo ko kii moo ko moom moo nekk borom supermarché bi. waaw borom supermarché moo ko moom mais mais oto bi caabi bi depuis daaw bouse bi moom moo am borom. seetloo daaw fi nañ nekkoon. waaw waaw waaw. maa ngi sant yàlla bu baax. waaw damay xool ne ay alhamdulilah macha allah. Fallou noonu baax na léegi léegi lan lan war a nga ne kii bi waaw yéen a fi nekkoon doon def à la une. waaw. man ci laa war a woo. mu ñëw defaraat wax contrat bi mu ñëw defaraat fii pour accès bi gën ah kon ñu jëm fi def foofu. allo allo allo. kii mooy sëñ Fallou mooy sëñ Fallou. mu la yàlla sax naan lépp te yéen dañu ñëpp dañu ko yàlla la yàlla fa xol seet na ñun ñëpp dañu ñu. jërëjëf sagar yi ci yaramam maa ko moom li ma ma ba ko njëkkee wax la ni ma yow nga ni loo wax ci arrêté. yitte dàq lépp nga ko baax sëñ ma ne ko su ma masaan xëy ba ma ba ba jox ma ndékki di ma jox joxal xale yi ma ko yàlla na nga yokk ba yëpp mënu ma sa ñaan nga dal na yàlla na gën a dal ci barke yonent ba seen ñoom fii seen Dakar duñ jël Dakar depuis daaw daaw jaamu yëpp duñ ko invité kon léegi kon léegi mën na maa moom borom la dañ koy jox carte benn ñaar ñaar baax na wala ma jox nga waaw jox nga jox léegi ci la joxee nga jox ko ñaari kan soo demee nga ma jox la enveloppe nga ne ko seet ne ko kii jaaj allo Dieng Daoud Daoud chef de quartier bi chef de quartier bi ki mooy Uba non dama ko xam parce que li may wax xam naa ko yow tamit xam naa ko parce que le problème mooy que déjà événement événement bi yombul ba pare léegi ngeen bëgg jël affaire yi bëgg ko waaw non non dama ne événement Ngoye Fall bi yombul donc nag nekkul affaire boo xam ne dañ koy jël di ko par par wala dara parce que dafa laaj vraie organisation ak dal kenn ku nekk lu ñu lay wax nga def ko lu ñu la wax nga luñ la sant nga nga tegee ko comme ni niñ ko bëggee c'est tout jeex na. mais moins de ça da ngeen dafay réer. mbokk yi kooku mooy euh, le grand patron Uba moo yor dibiteri ah, Uba moom dibiteri Uba yi ngay gis mu ngi xool ci organisation bi yéen a ko déggandoo nee na événement bi yombul euh, Uba. ci loo nekk. waaw ah, ñu ngi sant ñu ngi Uba loo nar ci événement bi ñoo ngi gis yaa ngi yaa ngi yaa ngi commandité sax sa yi di leen naan événement bi yombul. waaw yombul parce que ni ma ko gisee nii man si seetlu na yombul. la donc nekkul mbiru la boo nekkul mbir bu ñuy parax paraxee quoi. dëgg la. parce que fu mu nekk nii dal rek moo ñu si mën a génne. ak xoolaat ba pare. ah oui ah, ah mais du ubaa yow da nga ñëw marqué sa empreinte ci wàllum dibiteri mhm. di créer ay menu yu bees ci mhm. wàllum dibi mhm. lan moo la loolu nga toog sa sa sa réew liggéeyal sa réew di ubbi façon dibiteri bu nekk fii si Sénégal fii si Ndakaaru Ndiaye inspiration boobu fan la jógee. ah bëgg liggéey rek. parce que ay dibiteri korom ak fay lañ doon dégg waaye ñëw nga léegi dibiteri Uba bee xew. ah sant yàlla rek. Ah. donc nag euh, métti na mais sant yàlla. dëgg la. parce que affaire u dibiteri yi ah ah. nit ñee koy jëlee caaxaan mais du caaxaan donc man xam naa si dara surtout ma moment bii ñu nekk nii man xam naa ne du caaxaan mais ku bëgg xam vrai vrai vrai Ouba laa la wax waaw événement tay bu la rëcc ngoy faal barke alxuraan bu mu la rëcc ah. bi tay bi bu tay bi déedéet waay ku bëgg xam vrai vrai vrai Ouba euh. bu tay bi bu mu la rëcc est xam nga ne foo génne mënu ma topp la fa non li may génnee mënoo jël lépp ba mu jeex non foog damay indi ay caméra yu mënul nekk da ngay jël ba fi nga sonnee rek yem fa <laughs> sama morom jël li ci parce que man li ma wax ak Ngoy Fall. ak li ma fi nar a def. man maa ko xam. est-ce que dina mooy li may wax rek parce que. Euh, dafa am loo xamante ni. xëy na peut-être mënu ma ko wax fii. dëgg la. mais lu nga koy faal préparé yëpp tey <coughs> yow yaay ñëw yor sa caméra. Ah. di firme ba fi nga sonnee rek taxaw. taaw <coughs> barki Cheikhul Khadim. <coughs> mais bu baax ku bëggoon commandé wala ku bëggoon genre festivité yi nii mu bëgg leen contacter yéen ngeen ñëw jàppale leen ci liggéey bi kan lay contacter ak nan lay def ba jot leen. yomb na day jël numéro 77. waaw. 629. waaw 0000. 629. 0000. li nga bëgg yëpp di nga ko am. incha allah yi nga soxla yëpp. incha dinañ la ko jox. mbokk yéen ko déggandoo képp ku bugg soxla Uba dibiteri Uba ñëw ci sa festivité sa événement woote leen 629 00 00. mais bugguma tey rëcc leen. non du ñu rëcc. ak kii <laughs> du ñu rëcc Uba <laughs> jaajëf. mbokk yéen ko gisandoo ñii mooy tàmboor yi ñii yegg si nañu événement bi narul yomb de ah loolu loo leen nar ci événement bi. léegi ah. rek. léegi rek li ta waxam yàggul ah guddi Seydina Mouhamed lañ wax de waaw ah, dina neex dina yëngu moom ah. waaw bu soobee yàlla incha allah rek jaajëf dina neex dina yëngu dañu ko compris bu dee lañ dimbalee mais damay toog leen xaar dañuy faj ay xuloog mbàcc yoog Fallu fallu yow fallu fallu man moom mooy raxal ci gaañee moo xal fallu fallu may fay fay buñ ma wooyee rek dinaa doon waaw dina ko fay waaw nee dina ko fay. ma wooyee Cheikh Yaba rek Cheikh Yaba. ay buum xool ay fan ay buum xool kooku waaye ñoom ñaari fan ñoom ñoom ñoo bokk ñoom dañuy déggoo seen biir. ñaari fan ñoom ñoo bokk ñoom ñoom ñoom fekkee da ngay bougé pas. paa la eh kii sama yaay la tey tey laa leen yóbbu añ na yóbbu nañ ko fële añ na wax ñoom ñu xam nañ kaay kaay yóbbu nañ ko ay kaay allo fan fan nga nekk tey damay gàmmu rek xanaa gàmmu gi nga yëg waaw mais xam nga dama noonu xoolal dama xam ne moo tax xam ne nag ma da la dama <laughs> la sama tante la lu nekk la ah. añ ña jox naa ko léegi añ kaay toog xaar ba ba ba bëgg mu jib mu ñibbi ndax demal mu toog baax ah. Hadi amke mayu kay karkat yo. Mayu kay. Bay boo bay. Ba démb ñëw waaw ba démb ñëw naa ko laay topp suba ak kii ngoy na ba xaar. nan ko woo ci borom nanu ko woo ci sëriñ Saalu Baay Saal borom dul sama am di jàmbaar ja sama am di jàmbaar ja sëriñ Saali wooy jàmbaar bala ma ca ngay Saali wooy jàmbaar jàmbaar ja samaam ci jàmbaar ja baay saal borom ñu borom jaanu booba balay sama janal sëñ Mbàkke maaram ci sëriñ Saalihu balay ci kuy sëñ Mbàkke maaram sëriñ Saalihu war jàmbaar ja balay sama janal baay saal borom ñu borom jaanu moo di jàmbaar sëñ na juub sëñ na xabaar sëñ na got sëñ na muus

borom xel borom borom njëriñ borom gox borom muur borom jànnatooy borom mu xuraan dem nañ ñee jaar jeexal séeréer di bala sama ca ngay kii di jàmbaar borom maa mi jàmbaar yaa booba cee day ndi njaay day ndey feeñ boo dulal maa di daal sama am bala sama ca ngay si maaram yow ku maa njëkk daaray kaamil man moom ba autoroute ba Cheikh Abdoulaye ma leen naa tàndal may Medina ma gën di Touba bala sama canay si Mbacke maaram yaa ka baaxi maam kuy sa maam maam xaali ma jaxate kala xaali ab sa jaxate ak sa soxna Mbacke maam maaram bala sama canay si Mbacke maaram Bakaraale Baba Diop la Thank you.